Euh, xam ngeen ni euh, àdduna dafa dafa dafa amoon plateforme bu ñu naan plateforme de Beijing te état yi yëpp tënku woon ci pour que ñu euh, jàppale jigéen ñi jigéen ñi ñu mën a jëm ci kanam ànd ci développement bi e ci loolu ñu dund ko pendant ñaar fukki at ak juróom la mise en œuvre de cette plateforme maintenant at mi atum 2020 doonoon at moo nga xamante ni communauté internationale dafa waroon a évaluer plateforme boobu et nation yi yëpp dem fa ak seeni rapport ci la société civile sénégalaise nag tënke évaluation xool li nga xamante ni mooy des des des yi ci application wu 12 points yooyu ci euh, Sénégal e ñu génn ci ce qu'on appelle cahier de recommandation boo xamante ni dafa euh, regroupe regroupé de yi des des des yi nga xamante ni des na ci avancé wu Euh, programme boobu nga xamante ni euh, am euh, amoon nañ ko ci Sénégal alors ci loolu nag lañu ni woon il faut ñu am atelier boo xamante ni dinañ partager suñu xalaat ci évaluation boobu xayma boobu ñu xayma politique yi Sénégal yi ci wàllu jigéen ñi e boole boo bokk ko ak ndaw yi assemblée nationale député yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy toogal ci gox yi mu di élus yi pour que ñoom itam ñu comprendre ni euh, suñu politique ak suñu programme lii des na ci te war nañ ko mën a sàmmonte ak gouvernement bi pour que ñu appliquer ko pour que Sénégal yëpp mën a jëm kanam loolu moo waral tey jii atelier bi ñu indi ko euh, vraiment euh, di ko saytu fii ànd ko ak les parlementaire et les élus ndaje bi wane na ay points yoo xam ne war ngeen ko améliorer tuuti te dina def objet de recommandation est-ce que mën nañu am idée ci points yooyu. waaw euh, bi ñu saytoo euh, euh, tëralini politique yi xam nañ ni ci njàng mi ak ci wér-gu-yaram wi ak ci énergie bi moom dafa am dafa doon ay priorité maanaam lu soxal askan wi la yoo xamante ni mënee su koo bàyyi ginnaaw poy yooyu et mu am ay des-des yu baree bari yoo xamante ni war nañ ko ci xayma. fukki poñ yi ak ñaar yëpp xëy na nañ ko waaye xayma nañ ko waaye yooyu dafa doon yoo nga xamante ni dafa gën a fës gën a leer yoo nga xamante ni dañ ko war a jël en charge ci la ñu wax ni nag il ñu waxtaan ci bu xóot a xóot pour que ñu mën ci am ay solution ànd ak parlementaires yi ñoom ñu comprendre ko ak élus locaux yi pour que ñoom ñu mën a defendre ñu am alliance ak ñoom waxtaane ko pour que bu ñu jàkkaarloo ak gouvernement bi ñu mën ci am ay progrès ndaxte askan wi yëpp la ñuy liggéeyal du kenn rek mais ay acteurs yu yoo xamante ni la kenn ku ci nekk war na bay sa waar waaye kenn ku ci nekk bu gisee war na mën a waxtaan ak moroomam ci li mu gis pour que ñu mën a ànd liggéey ci moo waral atelier bi tey bu ñu mënee bu ñu gis gëstoo gëstoo ci wàllu njàng mi euh, def nañ ci progrès yu baree bari waaye dafa des des na lu bari euh, loo xamante ni mën nañ ko ci def ci wàllu wërgu yaramu jigéen ñi itam def nañ ci progrès yu baree bari wér-gu-yaramu jur avancé na loolu waaye ba léegi ndeetal jigéen ñi ci jur mi ngi am eh, sëy yu teel yi ñu ngi am et eh, eh, loolu dafa doon loo nga xamante ni dafay gàllankoor xale yi ci seen njàng gàllankoor leen ci seen wér-gu-yaram parce que seen yaram àttanagul sëy parce que dafa doon dafa amagul maturité te loolu ay saytu yoo nga xamante ni yu ñu war a taxawal la ci wér-gu-yaramu ndaw ji ak jigéen ñi ci wàllu oh, énergie bi aussi li ñu seetlu moo di sunu réew euh, euh, tey ji am na pétrole ak gaz danañu am incha allah ay koom-koom yoo nga xam ne ci loolu lay jóge waaye gëm nañu ni loolu su am koom-koom yooyu dañ ko war a verser ci éducation bi ak ci wërgu-yaram bi parce que li ñu crise Covid bi woon moo di wërgu-yaram bi priorité la tey essentiel ci li ñuy def mbooleem lu ñu am war nañu xool d'abord lan la ñuy dogal ci wërgu-yaram bi surtout wërgu-yaramu jigéen ak doomam ak lan la ñuy dugal ci njàng mi surtout njàngum jigéen bi ak xale yi pour que loolu mën a mën a ñoŋ continuer pour que ñu am développement lii daal loolu moo tax ñuy te ñuy waxtaan tey ak parlementaires yi ak élus yi pour que priorité yooyu gap yi ci nekk ñu mën ko mën ko réserver Euh, bu ñu jàkkaarloo ak gouvernement ci programme yi muy muy muy tëral. représentativité parce que taux waaw xam nga euh, euh, Sénégal dafa doon réew moo xamante ni réew exemplaire la ci Afrique ñun à part Rwanda ñun ñoo fi am loi sur la parité et Rwanda sax amul loi sur la parité ñun ñii ñoo ko am Rwanda dañoo avancé parce que ñoom volonté politique moo leen tax a avancé carrément. mais ñun dañoo am loi boo xamante ni day exiger parité ci instance de décision yi mu doon programme progrès boo xamante ne àdduna yëpp ko rafet Afrique di ci roy alors euh, bu ñu demee nag euh, ci loolu nga xamante ni ay royukaay lañu jigéen ñi ñu ngi yegg ci fa ñuy nasee fa ñuy noccee ñu ngi avancé lu baree bari ci loolu ba euh, ci suñu institution yi ñu am na ñu am fi ay premier ministre am ay directeur de la police am ak leneen na rek leneen egg ci ba suñu ñaari institution républicaine yi ay jigéen yore ko mu di euh, au conseil euh, des collectivités territoriales ak euh, conseil économique et social àdduna yépp ko rafetlu woon e ñi ñu ko jox aussi ñu doon ay ñay xare ci jigéen ñi parce que dañoo def seeni preuve un peu partout doon ay exemple donc bu fekkente ne dañu dem ba 2020 ñuy def ay réformes gouvernement bi di changé ñun dañu dañu gëmoon ni li nga xamante ne ay acquis la ci wàllu jigéen ñi alaakuli àllin lu mu métti métti métti suñu càmmiñ yi dinañu ko jàppale dinañ ko préserver malheureusement ba ñu defee seen i combine seen i waxtaan saa yu gars yi waxtaanee suñu càmmiñ yi ñun ñoo ciy perte parce que bu dee ñoom ñooy seet rek nan la ñuy defaroo euh, ñun la ñuy delloo ginnaaw nangu la ñu yor pour ñoom ñu juboo malheureusement mais euh, mu doon lu ñu naxari naxari ndaxte yaakaaroon nañu ni càmmiñ ñi daal dina dinañu am euh, générosité ak euh, gentleman bu toll ni vraiment du duñu def lool mais nag euh, loolu la ñu constaté mu doon nag lu naqari mouvement féministe bi mouvement féminin bi parce que dañu ànd ak suñuy nawle Afrique doon ay exemple ba pare nag ca dëgg-dëgg suñu cër la suñu droit la woon aussi te préserver ak yi dafa dafa doon lu rafet parce que lu lu war ak lu rafet dafa dafa am waaw malheureusement ñu di ko joytu di ko naqarlu ñaan nag suñu càmmiñ yi ñu seetaat nan la ñuy defaree loolu parce que nag li ñu yàq moom rëy na lool wax dëgg yàlla suñu ko euh, suñu ko mënee defaraat euh, delloowaat ñu ci place yi institution républicaine yi euh, régler ko te dara du ñaaw doon na doona doon li waaye li ñu gëm moo di na moom lépp loo am te xeex ak fulla ak fayda mayu la ko loolu mën nga ko ñàkk moo tax ñu gëm ni euh, le pouvoir ne se donne pas il s'acquiert et incha allah loolu dafa doon une leçon pour les femmes